su amee kilifa gu ñu war a tànn gu gën a ràññeeku ci atum 2019 bi mënta doon keneen ku dul Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides ci ay jëfam ak taxawaay boo xam ne am na ko ci mbooleem loo xam ne ñeel na askan wi ci réewum Sénégal ci ndoorteel atum 2019 bi ci janvier bi rek ñuy waajal élection présidentielle yi askan wi doon njortu ay jafe-jafe yu am ci ay manifestation ak ay jàmmarloo yu bàyyeekoo ci yooyu la élection ak campagne bi rawatina biñ gàntalee yenn candidature yi Serigne Mountakha Mbacké Bachir génn def déclaration ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo di jullit yépp ñu jàng alxuraanul karim ci jumaa yi ñaan ñu amal élection yoo xam ne élection yu jàmm lay doon mu mel ni ñaan yooyu ñu doon def yàlla nangu na ko donte ñeenti candidat yi nga xam ne dañoo ñàkk élection présidentielle yi dafa séene woon a jàkkaarloog président Macky Sall ngir jàmmaarloo ak moom ak ñaawlu ni nga xam ne noonu lañu organiser élection présidentielle yi loolee lépp Serigne Mountakha Mbacké Bachir dox ci tànki jàmm waxtaan ak opposition bi ñu teg lépp ci suuf ci langue politique bu Sénégal. lu jiitu élection présidentielle yooyu sax Serigne Mountakha Mbacké Bachir dalal na ñi yëngoo ci wàllum tasum xibaar fii ci Touba ak li ko wër waxtaan ak ñoom jox leen ay conseil ci ni nga xam ne noonu lañu war a traité information yi ak seenu taxawaay jëme ci mbooleem loo xam ne xibaar la ñu war koo jox askan wi. leneen loo xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir réussir na ko ci atum 2019 moo di jubóole Abdoulaye Wade ak Macky sàll diirub juróom ñaari at yoo xam ne jubawuñu woon ak it jafe-jafe yu métti yoo xam ne amoon na ci seeni diggante ak ñi nga xam ne ñoo bootu woon ci seeni ginnaaw kilifa yu bëree bëri jéem ci ngir dox ci tànk jàmm waaye loole sottiwul Serigne Mountakha Mbacké Bachir yàlla dimbale ko ci ay simili yu néew mu jubale ñaari kilifa yooyu muy Abdoulaye Wade ak Macky sàll ku ne mu wax la lay sëb cër ak sa wàll ci biir réew mi ñoom ñaar ñëpp ñu déggal sëriñ bi daal di jëfee lu ni mel. sunu borom teral na leen ba noppi. lu leneen lu ñu gis lu leen neexut ci seen bopp. loola dogalu sunu borom la. ci atum 2019 bi ba léegi duñ fàtte mukk jëf ju am solo ji nga xam ne sëriñ bi jëf na ko muy inauguration grande mosquée ji naan di jumaa ji nga xam ne moo gën a mag gën a taaru ci Afrique sowu jant. mu nekk xew-xew boo xam ne histoire Sénégal du ko fàtte mukk rawatina yoonu Mouride. Serigne Mountakha Mbacké Bachir bi muy ñëw ci ndakaaru di waajal inauguration boobu mbooloo mu takku lool daal di koy teertu mu nekkoon lu rëy lool ci mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi Mouride yi nga xam ne dañoo nekk ci ndakaaru ci kolobaan gi nga xam ne fëla sëriñ bi daloon mbooleem kilifa yi moo xam diine la kilifay yi politique ba ci aada kenn ku ci nekk fësal ak mbégteem waaye santaat bu baax sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir ci taxawaayam rawatina jumaa ji nga xam ne moom la inauguré si di Masaalikul Jinaan vendredi 27 septembre 2019 di bés bi nga xam ne ci lañ inauguré jumaa ji ndakaaru fees dell mbooleem jullit yi rawatina murit yi am yëg-yëg bu kawee di dund loo xam ne mën nañ koo méngaleeg màggalu Tuuba muy sant bernde ak it jaamu yàlla mboolem jullit yi di bàkku ci ndam li nga xam ne lislaam amati na ko te mu jaaree ci taxawaayub Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des mourides wanewaat na taxawaay bu am solo bi fi Cheikh Béthio Thioune bàyyee ko coow tàmbali woon na jóg ci bërëb biñ ko war a denc loole sëriñ bi àddu ci joxe ndigal ñu indi ko Touba waaye taxaw ci taxawaay bu am solo waxtaan ak njaboot ji ci coow li nga xam ne jugoon na ci ki nga xam ne moom moo ko war a donn ba xamal njaboot gi ñu topp ci ginnaaw ki nga xam ne moo fi taawam di sëriñ Saliou Thioune. loolu mooy liggéey bi ngeen ko liggéeyal. te mu amal ko njariñ te mënu ko wecceeg dara. dëgg. feeg ngi ciy nekk itam liggéey njëriñ njëriñ yooyu la koy fekkee. jërëjëf Mbacke. atum 2019 bi ba léegi xalifa général des mourides daal di taxaw temm yeesalaat mboolem tere yi nga xam ne moom lañ tere ci dëkk bu selle bi di Touba sëriñ bi fësal lu ni mel jël ci ay matuwaay ci teewaayu président de la république Macky sàll ci la jële ay dogal ànd ci ak kilifa yépp tere fi jëpp wax ak jëpp jëf yoo xam ne dafa juyoog njàngale lislaam li nga xam ne moo di jàng jàngale ak xam-xam nekk na lu ñor loolu xalifa général des mourides sëriñ bi it am na ci taxawaay bu am solo ndax ci lañ door liggéeyub complexe Cheikh Ahmadul Khadim ñu naan ko université bu Touba di projet bu mag boo xam ne xalifa général des mourides yitteel na ko lool ñu fas yéene cee def lu toll ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar ci suñuy koppar fukki weer rek biñ dooree liggéey beeg léegi immeuble yi jóg ba liggéey bi sori lool Serigne Mountakha Mbacké bi mu doonee xalifa dafa yaatal lépp boole ci mboolem njabootug Serigne Touba gi saa su ne muy dox ay jéego di dem di leen nemmeeku di gën a rataxalaat diggante yi di waxtaan ak njaboot gi ci lépp loo xam ne luy defar la taxawaayam ci mboolem xew-xewu diine yi ku ne ràññe na ko rawatina weeru koor gi nga xam ne da ko gën a dundalaat ci kër Serigne Touba gi màggaluk Touba gi mu dox ci jéego yu am solo ba ci ni nga xam ne noonu la ñuy dundalee guddi gàmm ci Touba Mbacké màggal poroxaan ak yeneen événement Serigne Mountakha Bachir di njiit lu dëggu yaatu am yëg pas-pas ak dëggu lool ci mboolem loo xam ne mi ngi koy def jullit yi kenn ku ci nekk di ko seedeel seede yu am solo ci taxawaayam ci diine lislaam ak lépp loo xam ne dafa soxal réew mi bu yàggul rek ku ne gis na taxawaay bi nga xam ne sëriñ bi am na ko biñ jàppee sëriñ daara bi nga xam ne moom moo di xaadim géy jëf jooju nekk lool mboolem kilifa yi diine yi rafetlu ko lool. li nga xam ne lenn la ci li nga xam ne sëriñ bi jëf na ko ci atum 2019 bi ak taxawaayam ak mboolem jàppaleem jëmee ci askanu Sénégal sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir moom lañ def muy kilifa gi gën a ràññeeku ci atum 2019 bi di la personnalité de l'année 2019. di ko ñaanalaat mu yàgg fi lool te ànd ak wér